notation bi mën ngeen noter benn candidat bu nekk wala une coalition si je pense que aujourd'hui je représente une coalition donc coalition bi la ñu war a noter donc dama leen di féliciter di féliciter jury bi di féliciter seen coordonnateur monsieur Dame mais jury composé de sociologues de professeurs, d'imams et de journalistes je pense qu'on ne peut pas plus complet en tout cas sama xel dal na ci te wér na ma ni luy am solo lay doon ma présenté wu man Augustin Tine laa tudd euh, juddoo Fandène en 1952 yaroo fa màggee fa ba am fukki at ak benn ma dem Ngazobil bëgg a nekk labbe euh, def euh, ab diir ba classe seconde première ma jël ci man dama gëm ni parce que ci ñun on dit que son sont appelés peu sont élus donc ma dem ba yaakaar ni la ma bëggoon mënuma ko Euh, ma bàyyi labbe ga dem continuer sama étude ñëw fii collège Saint Gabriel def baccalauréat euh, après dem université def fa jaar-jaar yi jarul may dugg ci détails yi euh, am diplôme chirurgien dentiste la de formation voilà de confession chrétienne chrétien pratiquant remettant tout ci loxo suñ borom lépp lu may def suñu borom laa ci yaakaar je suis un chrétien pratiquant dimanche bu nekk dinaa dem mes damay participer ci vie religieuse parce que damaa gëm ni euh, am na solo mais wax leen ni aussi man dama juddu ci samay maam ay musulman la ñu woon sama maam bi ma yar particulièrement musulman la woon ci la ko suñu borom yóbbu sama papa jotoon na sax dem daara Euh, ndijaayam moo ko fa jëli mu nekk chrétien donc dama juddu sama papa nekk chrétien ak sama yaay loolu moo tax ma nekk chrétien am ay mbokk musulman aussi ak ay mbokk chrétien donc damay nekk à bu ma nekkee fii ci Sénégal yëpp damay nekk à l'aise te gëm naa ni euh, dialogue islamo-chrétien taxaw na fii bu baax a baax bi ma amee sama diplôme aussi ma dem liggéey Kaolack euh, bi ma temps bi bu jotee aussi mën nga ma wax euh, bi ma bi ma paree foofu donc ma yàlla def ma dugg ci politique euh, donc def naa fonction publique fukki at ak juróom après ma ubbi sama cabinet dafa fukki at ak euh, juróom ma ak juróom-ñaar sax après ma dugg ci politique depuis 1999 yàlla def ñu nommé ma loolu moom ma yóbbu Ndakaaru mais Kaolack laa nekkoon Kaolack ak Thiès rek laa xamoon donc euh, voilà donc présentation bi mooy loolu après ma nekk ministre li ci nekk xam ngeen tey léegi coalition moo tabb Augustin Tine ci list ou coali Benno Bokk Yaakaar coalition bi moo ko tabb yàlla def mu jiite liste kenn ku nekk mënoon na jiite liste ña ma tànn nag pour ma jiite liste bi ñoo xam critère ya ñu teg pour ma jiite liste euh, mais li ma wér mooy ni def naa donc sept ans de ministre de forces armées donc euh, xam naa luy assemblée te wér na ma ni assemblée ci réew pincum réew boobu nga xam ni euh, dañuy def juróomi at yu nekk ñu wë changé waat ko changé ko gëm naa ni lu am solo parce que pincum réew moomu mooy voté loi donc suñu engagement mooy bu ñu fa nekkee euh, loi yu ñu indi ñu seggi ko xool ko bu baax a baax bu jaree voté ñu voté ko mais wér na ma ni projet de loi yi mooy yi nga xam ne ñu ngi jogee ci président ak si ci ñun gouvernement ak si ci assemblée nationale dina nekk projet yoo xam ni projet yu wér la parce que ñun ñëpp d'accord nañu ni président de la république liggéey na réew mi man loolu laa gis président liggéey na réew mi bon jar na jàppale programme président de la république mooy programme bi nga xam ni gëm naa ni moo gën ci programme euh, te loolu wane na ni assemblée lu am solo la ci réew beneen bi assemblée yàlla def na dañu am fonction il faut que ñu représenter donc euh, euh, état Sénégal pencum réew am na ay réunion bitim réew am na ay réunion ci ci ci dëkk bi assemblée nationale aussi loolu bokk na ci fonction beneen bi assemblée aussi donc mooy contrôler action gouvernement donc loolu aussi mooy engagement contrôler action di gouvernement euh, beneen bi aussi 2016 la ko ci président dugal donc mooy évaluation des politiques publiques loolu 2016 la ko ci président dugal gëm naa ne lu am solo la donc assemblée nationale lu am solo la ci réew parce que dañu fay nekk pour population mais boo demee foofu bokk ci coalition tu es arrimé à la coalition loolu mënta ñàkk mais nag euh, mënuñu wax ni yow yaa ngi dem assemblée maanaam def lu la neex da ngay def li nga xam ni peuple bi dafa am yaakaar ci yow loolu gis-gis boobu lañ ci am te Euh, am naa yaakaar ni aussi euh, donc lu am solo la donc euh, loolu laa ci bëggoon wax ci mbirum liggéey bi nga xam ni am naa yaakaar ni moom la ñu war a def assemblée nationale gëm naa ni def nañu liggéey bu am solo président Mbow wax na ko sànq am na ay projets yu ñëw projet yoo xam ne coalition bi am na fa majorité mais dañ ko rejeté te moom toujours damay waxtaan ak moom donc la fa nekk dara ump ma ci mën naa wax euh, gëm naa ni def nañu liggéey bu am solo amoon na si ay coow yoo xam ne mënoon na ñàkk mais assemblée nationale ñëpp xam nañu ci àddina yëpp ku seetaan télévision seetaan assemblée nationale suñu bos mën naa wax ni bokk na ci yi gën a yem gis nañu ay nit yoo xam ne sax génn nañu ay pistolet te dafa mel ni amu xeexoo yi am na c'est dommage wax yu ñaaw yoo xam ni teggi néewul mënoon na ñàkk mm-hmm. gis nañu ko ñaawlu nañu ko mm-hmm. dóorante kuñ kurpañi aussi am na te surtout koo xam ni da nga aspirer pour diriger réew am na comportement boo xam ni war nañu ko mën a moytu wax yu ñaaw yi war nañu ko mën a moytu parce que wax bu ñaaw tubaab di boo ni wax bu ñaaw dafa mel ni bomb buy génn ci canon bu xasee génn kenn mënatu ko arrêté donc yooyu je pense que am na effort yu ñu war a def pour pour que yooyu bañ dee am euh, gëm naa ni taxawu nañu askan euh, parce que dañuy wax rek mais bu fekkente ni projet de budget yi ñëw nañu ñoom ñu càmbar ko parce que dem naa assemblée nationale xam naa ci dara ñëw càmbarku da ngay dem commission d'abord doog a ñëw plénière ñu ñëw xool ko seet ndax lii war nañu ko mën a voter buñ ci waree def ay modification ñu wax la ko nii lii d'accord ci ci commission yi gëm naa ni def nañu liggéey bu am solo représenté nañu donc euh, population bi euh, ki nga xam ne moo jiite diocèse de Thiès ak bu ma ci pape bi de ki jiite diocèse de Thiès monseigneur André Gueye mën naa génne vidéo nee na église catholique dafa condamné homosexualité te kooku mooy sama kilifa diine nee na dafa criminaliser homosexualité ba ma jógee foofu dem ci président de la république mais président wax na fi tant que je suis président loi boobu kenn du ko fi voté loolu kenn du ko kenn du ko nangu Sénégal loolu doy na ma parce que damaa gëm ni la ma wax wax ko ci kanamu président américain bi wax ko ci kanamu président européen yi gëm naa ni loolu loolu te nee na tant qu'il président loolu du fi am nit ñi nag dañuy wax parce que bu ñu demee élection am na ñoo xam ni gëmuñu lu ñuy wax man la ma wax dama ko gëm lépp lu ma wax dama ko gëm imam du ma la wax lu ma gëmul te mais gëm naa ni loolu mënu fi nekk mënu fi am en tout cas ñun gëmuñu ko te wér na ma ni islam gëmu ko donc loolu ma gëm naa ni kooku ay ay ay yeneen wax euh, donc criminaliser je pense que nous avons tous les atouts wax jooju bu ñu ko xesee wax wax nañu wax ji président wax na wax ji mais je pense que c'est largement suffisant la président wax gëm naa ni en tout cas man doylu naa te sama diine nangu ko diine l'islam nangu ko te ñaari diine yi ñoo fi nekk Sénégal gëm naa ni loolu euh, tënk na lépp